ndaanaan laa ñaari yoon kon boo booba laa mëne foo jaar laa mëne dama mën ci mën ca mën ci yi boor boor bàyyi fàtt njaay nu roowu maag ñoom cuuna rëy ma juub waa na roy maa ko baaxi ñii ma yor siy jeeg gën gu jërë ngeen jëf mbokk seetaan ci Wassare Lamb ñu yottu nañ am kontante ak mbégte mbokk yi comme ni ñu leen koy defalee saa su euh, ñu leen di nuyuwaat képp koo xamante ne yaa ngi ci réew mi ak bitim réew fépp waaye mën na ne tey bëgg Wassare Lamb ñu leen di bu baax a baax la fekk fi nga tax toog wala fi nga taxaw la loxo euh, di la katagal di la jaajëfal bu baax a baax du ma ci wéet benn yoon ndax jàngat làmb buñ ko waxee xel dem ci suma papa Père Birahim moom laa ciy àndal ñu fas yéene waxtaan ci lépp loo xamante ni day jariñ làmb nga koy yokk père maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. waaw jërëjëf maa ngi auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani maa ngi nuyu bokki eh, téléspectateurs nga xam ñëpp ñu ngi seetaan safoo wasaare internet yi nga xam ne yëpp ñu ngi safoo site wasaare tey jii ma toog ak jili sama doom di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam Eh, di nuyu Adama Kaagu Bachir ñëpp maa ngi di nuyu ak waa bureau bi ak ñoom Ousin ñëpp mm-hmm. ak xale yi ñëpp comme ni ma ko waxoon rek ak xale jigéen yi sama doom yi nga xam ne mm-hmm. ñoom météo mbéy ak ñoom ñëpp mm-hmm. waaw maa ngi nuyu ñëpp daal di ñaan sama kàddu yàlla na leen fekk ci jàmm di ñaan mbas mi ne ci àddina bi tamit lëkkal ñu witti nit na fi yàgg yàlla jëlee ba ku ne del waaw ba yàgg yàlla defal ñu kenn ku ne dellu si sago waaw ñoo ngi koy ñaan ab jullit ñaan rek la kon nañuy ñaan ñun ñëpp rek bu kenn xeeb boppam mm. na kenn ku nekk ñaan rek yàlla na yàlla jàll indi jàmm ci àddina bi mm. yàlla yàlla indi jàmm ci àddina bi muy wér jële fi mbas mi sedd bi de wa noonu la jamono sedd man de moom a gën a tàngoor wax dëgg yàlla ah. waaw tàngoor sax man damaa tàng mm. moo tax sedd moom a gën a tàngoor <laughs> waaw dama laa dégg daal seddaay bi baaxul ci mag eh, <laughs> man gën sedd da ngay a solu dangay ngay mën a ubbi sa wari si sol yére yu baax mais tàngoor mënoo sol dara loo sol ñaq loo sol ñaq waaw kon nag euh, di sol di mën a sol bu baax bu sedd bi ñëwee di ko mën a nag. mais sedd yu yu am doole yooyu. yu ma dem États-Unis yow tam glace bi taw sama kaw <laughs> ma dem ba foofu nees bi taw sama kaw may doxantu ci biir nees mu neex lool ci man ah, te mosuma gis nees booba xaw ma nees bu ma ko séenul ci télé nii uh-huh. mosuma gis may nag damaa dem nees bi taw ci kaw ma kaw mu neex lool ci man. waaw maa ngi nuy waa États-Unis ñoom daam ak ñoom ñëpp ñoom bi ñoom Issa Diène maa ngi nuyu sama gaa yooyu ndeysaan foofu koy yàlla moom lomp dëkk bu neex la waaw New York New York waaw ak Florida ñoom Mati Mbaye laa soileen maa ngi koy nuyu moom invité ba Florida dëkkam benn dëkk bu jox Bradenton waaw ndeysaan maa ngi koy nuyu di ko ziar waaw ndax dañ naan làmb ci coow lay commencé ci coow lay jeexee. Mm. loolu buñ koy wax. Mm. Euh, ñaari adversaire yi war a bëri ñoo ñoo tax ñu koy wax. Mm. wala ñaari gox nga tudd Pikine tudd Parcelles. Euh, wala nga tudd Pikine tudd Fass nga xamante ni làmb yi làmb dër bi la. gis nañ coow loo xamante ni sosu ci ay équipe ay xale yoo xamante ni fi mu toll nii dañuy génn beddee ko. Euh, am coow ak ñenn ñoo xamante ne ay champion lañ nekk ci équipe yi. tey nga gis ni dama am combat jàppale wu wala mbër mi yëguñu wala dafa am beneen taxawaay boo xamante ne hmm. mbër mi ñu ngi wane ci écrit bi hmm. tey lu mel noonu ci coow muy judd ci ay gox te coow yooyu yëpp fi muy juddoo ñoom ñëpp ñoo bokk benn écrit ñoo bokk benn drapeau bi ñuy défendre ban gis-gis nga jàll waaw jërëjëf laaj bii de war naa ci xam dara hmm. parce que dund naa écrit bu mel écrit Fass te benn écrit gënu koo mag ci biir écrit te ku fa dund lu mat euh, quatorze ans dégg nga yaakaar naa war ngaa xam ci écrit dara mais xam nga écrit dafa am ñoo xam ne dafa am ay gaam yu bari yu ci am ñii dañuy yor jikko bu set di defaree ñu yor jikko lañ set ñenn ñoo xam ne ay mbooloo ànd day di gêné ñenn ñi nag dañuy defare rek lañ yor jikko ju baax lañ yor di rek ñaar ñu jubóoruwul sax dinañ dox pour ñu juboo ñooñu nag ñooy ñooy ñooy doxal écrit waaye ñi nga xam ne ñi bu kii daanee kee daanu sax mu dox dina kelle la daan loolu yàgg na ci écrit moo tax écrit boo ci gis tey jii amul mag mu baax mu nekk ci seen wet yor jikkoy poussé di defare yàgg-yàgg ci coow rek lay mujj looloo addinaa demee noonu muy lépp nag muy kër gi nga yor ak muy jabar ji nga yor muy service bi ngay liggéeyee muy fépp foo mën nekk rek dafa yëngu te amoo mag mu baax mu toog wala xale bu rafet jikko boog xale boo xam ne bii xol bu baax la yor yar bu rafet la yor di defaree defare yor jikko poussé di di ñaw di defare yàgg-yàgg ci coow rek lay mujj mm-hmm. loolu nag moo dugg ci écrit yi dafa am ñoo xam ne ci écrit ba mënuñu amuñu fa dara xam nga seen toogaay lan la fa jaxase rek la moo leen fa bàyyi waaye mënuñu ne mbër bi sax daanu ñu ne ko lii la daan moytul lii bul defati lii entraînement maanaam yokk la ci xam li ngay def nit li ngay yëngu ka lay sa mooy ka yokk xam ci la ngay yëngu waaw bu dee technicien bi nga ne yàq nii la appareil bi nii la wala nii la nangam bu ñu ngay def kooku mu ngi lay yokk mm-hmm. waaye ka lay wutali noonu kooku yokkul da laa te mooy dénk xale yu mbër di leen dénk nañu bàyyi succès ak xaalis ak ndomb tànk dafa gaaw a soppi nit ñett yi soo ko amee te amoo tawhid laal ko rek da ngay da ngay soppi ko tawhid lu mu laal rek day soppi tawhid maanaam mooy nga gëm yàlla wóolu sa bopp wóolu yàlla ne xam ne man yàlla yor sama avancement yàlla yor sama def yàlla yor sama victoire yàlla yor sama défaite waaye lu ñëw nga teg ko loolu yàgg-yàgg ci yàqu rek lay mujj moo tax jikko yooyu ko ci am tamit noonu da ngay mujj moo tax dangay ngay baale di jéggale bañ a déglu ki la yàqal. mais père ah. man li ma jaaxal mooy écrit yi. Hmm. Euh, chaque jour leader yi écrit yi. Hmm. ngay dégg ñoom ñooy jotee ñenn ñoo xamante ne ci écrit bi lañ bokk te ay xale lañ euh, tey boo xoolee boo delluwee ci ginnaaw tuuti da nga doon dégg diggante coowal euh, Gris hmm. ak Balla Diouf. Mhm. te ñoom ñaar ñoo bokkoon benn équipe bu ñu nekkoon muy équipe Fass. Mhm. seen diggante rafetoon na. Mhm. Euh, rataxoon na ba àdduna bépp xamoon ne diggante bi diggante bi dëgg la. demoon nañ ba diggante boobu ñuy gis diggante ku mel ne Eumeu Sène ak Tyson. diggante bi xoolal na mu meloon ñu bokkoon benn équipe ñu demaat ba coow yooyu am. gis nañ ko ci diggante Ama Baldé ak Boy Niang. gis nañ ko ci diggante Garga Mbossé mm. ak Sa mm. gis nañ ko ci diggante euh, Ama Baldé tamit ak Eumeu Sène coow yooyu li koy waral lan laa bëggoon xam mbëri xale yu ndaw yi ne ci équipe bi ñooy dem di jaxase mbëri wala mbëri yu mag yi ci boppam ñooy dem ba xam ne ñaari kuy lañ mënuñoo bokk mbalka waaw ñ yooyu ñaari ñaari ñaari euh, sama gis-gis mm-hmm. ñaari ñaari am ñaari point yi nga wax yëpp ñu ngi ci biir mm-hmm. ñaari kuy du ñu bokk mbalka champion du topp ci gannaaw champion champion mm. surtout ngeen maase at mm. tollooy at tolloo jamono mm. booy xaar mu jeexal rek nga jeexal bu fu mu jeexal rek nga jeexal parce que yéen a maase yéen defandoo carrière bu jeexalee rek nga jeexal waaw kon su xam rek nga doon te dafa am ñoo xam ne yàlla may na leen bay rek tur boo xam ne bii dégg nga euh, to saa yoo toppee seen ginnaaw soq rek ngay doon lool nag da ngay ba yëg ko ñi lay gis ñi lay wax di la ko wax loolu tamit xam nga li wolof di wax ñu bokk ci mbarka loolu mën na nekk fi Euh, ñaaw njort baaxul. Mhm. surtout. gis nga ñaaw njort. Mhm. yàlla mi ngi ñu bind tey jii dégg nga gën ñoo xam boppam moom mi ñu bind gën ñoo xam doomu aadama daf ñu wax ci sourate Tahammud daf ñu wax ci alquran borom bi am na fu muy waxee. yaa ayyuha allazina amanu ijtanibu kasiran mina zanni inna ba'da zanni ismun mhm. mooy maanaam lu ñu firi mooy euh, yéen doomu aadama yi mooy moytu leen njort naka leen njort bàkkaar la. gis nga njot baaxul. parce que da ngay gis nit da def dara da rek nga teg ko foo xam ne fii defe ne kii kat maanaam nga xool ci moom nga dem ci ci bar mu sànni pétaaw ne la sa waaju xees yi wala waaju ñuul yi nga xalaate ko nit nit da nga koy xalaatal lu rafet. wala mu ñëw fekk la fi mu waaw waaw waaw waaw waaw waaw lay waxal daal di ñaaw njort gis nga ñaaw njort ñëw na mm-hmm. dégg nga wala nga xëy bopp metti nga ne diwoo ma liggéey mm-hmm. ah man de xam boo demee ah, jili mi may toogal kat boo demee mooma yóbbu sëriñ ak nangam daal te fekk yooyu yëpp ay yàq la yàq yooyu gis nga groupe boo ci ànd nii te saañoo sa nopp léttoo létt dégg ma xam nga li ma la groupe groupe da létt léttoo létt dégg ma xam nga li ma la bu baax létt déggu ma ngay léttu maanaam bañ faale dara bañ a déglu dara ku lay wax lu baax nga ubbi nopp bu baax bi ku lay wax lu bon nga saa nga saa nga saa nopp bi képp ku lay wutal mbooloo xëccal taf sawet mais képp ku lay dàqal ku lay wutal noonu rek mu ngay da lay dàqal mbooloo loolu nag ku ci nekk champion te dund woo ko carrière bi dina jeex nga ñàkk ñëpp mhm. te mbër normalement dafa war a bëri carrière bi jeex mu seen nit ñu baaxal ñi mais ñu bëree ngi tey ji bër nañ ba seen carrière jeex ñu ñu amoon ci dëbb yëpp ñàkk nañ leen mhm. xam nga loolu lu koy waral voilà li koy waral mooy da ngay am nit baax doo ko téye parce que ñaaw njort nga dundee mhm. benn ñaareel ba amoon njariñ seen biir ku ci koo ci tane doo ko dimbali ah yor say millions di ko lekk yow kenn yàgg say bokk doo dimbali ñi nga tane doo leen digal lu baax doo leen tere lu baax doo leen tere lu bon jaar lu mu yàqu def bu ñu yewoo bala ah yetam ngay ànd ak nit ngay lekk say millions ma di jàpp ak yow di guddeeg bëccëg maa ngi seet di leen see saak di entraîné ak yow di def ak lu nekk fu ma ànd ak yow maa ngi ànd ak yow guddeeg bëccëg maa ngi sa wet dégg nga li ma boo amee bànneex ma ma pële ma ànd ak yow boo amee naqar ma pële la ci mais yetam soo ma jàppul man bu ma yendoo bala loo tax ñu bari loolay defee ñenn ñi loolooy tax ñu yàkk mbooloo ñenn ñi leen di ñàkkal mbooloo mooy wax dégg benn wax fële xamoon nu mu demee ñu la moytul diw de nangam nangam de moytul diw de nangam nangam wala de yooyu boo ko waxee dinga ñàkk ñëpp Balla Diouf boobu ngay wax moom ak kii maa sama fils la moo boo Bordeaux champion maa ngi lay nuyu tam waaye dama ne ñoom ñaar ñu bokk écurie Fass bokkuñu catégorie. Mm-hmm. bokkuñ ñi ñuy bëril. Balla Gaye euh, Balla Diouf ñi muy bëreel bokk ak ñu ga ñu Gris Bordeaux di bëreel kooku lan moo leen war a boole ñoo bokk écrit bi waaye bokkuñu classe bi maanaam ñoo bokk école bi mais bokkuñu classe bi ñoom ñoo ne ay mbër lañu nangu li ma la wax ñoom ñoo ay mbër lañu waaye bokk bokkuñu catégorie kon kooku lu mu la mën a yàqal kenn waru laa wax ci moom dara loo xam ne tax tax di ko gëm ku ko wax sax boo commencé may la bàyyil wax boobu bàyyil wax boobu non non Balla sama waay sama gannaaw la sama lépp la. kooku sax mu xaw ma sax ku mag ci ñoom ñaar waaye tournel passe boobu daal bu ci bul déglu boo déglu rek daal di andi noonu. loolu mën naa indi diggante guy gi ak Balla Gaye. waaw na diggante Balla Gaye loolu it mën na ko indi parce que dañ ko daan Balla champion la li mu yor da nga ko war a yor la ngaa war a yor sa roi des arènes gi muy bëgg da ko war a bëgg. nangam nangam mënu la nangam nangam daf lay daal yàq seen diggante ñoom ñaar waaye moom it su fekkee Balla Gaye ni la man loolu ma ko ku ci wax andi sama diggante ak Balla may ne déet Balla sama nit la làmb boole wuñu wu ñu maak moom te ku combat boole wuñu kon waxal leneen bul wax loolu Balla sama nit la daal lay freiné mm-hmm. Balla tamit su ñëwee ne ko guy gi nangam ak nangam mm-hmm. mooy déet guy gi sama frère la mm-hmm. bu leen wax loolu bu kenn indil ma affaire góor gi ku ko fee nit daal dàq sama kër bu fi ñëwati waaw loolu tëjoo gémmiñam loolu koo ko def nit bu la indilee lu bon da nga koy tëj da ngay tëj gémmiñam ne ma loolu kooku bul ma wax loolu sama nit la waaye bu fekkee dañ laa jox nga déglu ko daal di rànkiñe denc sa xol diggante ba yàqu na muy looloo ngi ci beneen bi tamit am na lu ci nekk gis nga da ngay gis benn groupe boo xam ne bi dañuy nekk fee duñ fa nekk à l'aise parce que xajaluñ leen fu ñu leen fene xajaluñ leen fu ñu jaxasee fu ñu fasee sikkim rayante am fa dégg nga fa xajaluñ leen ko ñu dem ber seen yëfi bopp ñooñu nag moom bàyyi la dama lay wax benn wax maa ngi nuyu sama benn doom bu ñuy wax ma mbay yàlla na ko yàlla may gudd fan ak daf daan wax ne euh, ku la mbooloo wuy si defaral sa jikko ku mbooloo wuy si maanaam nga jëkk-jëkk rek am mbooloo mu la wuy si maanaam comme ni Balla gay mbooloo wuy si ko ni guy gi wala wuy si ko ñoom gi maanaam ñooñu nga xam ne ay ay kii lañu ko ay leader lañu yoo xam ne mbooloo wuy si nañ mm-hmm. nañ defar seen jikko mooy koo tane di ko dimbali ku la tooñ nga baal ko ko te bul déglu lu bon mm-hmm. dee déglu lu baax di jéggale tey jëlale dees na la tooñ nga baal ko da ngay jéggale gis nga soo ko defee ñi baax ñëpp da nga leen di téye dañ fay des ci yow waaye ñi bon loolu xajow duñ ko duñ ko digérer dañuy dem bu boobaa nag kenn demul leen ñoo demal seen bopp maa la wax li téere laa la wax kay <laughs> waay mbokk yi loolu benn entre parenthèse la woon hmm. gis nañ coow ci loolu ci luy hmm. ci luy na leen xoolaat bu baax a baax baax surtout kilifa yi nga xamante ñoo jiite équipe yi dañuy waar xale yi di waxtaan ak ñoom leen gën a ñaax ci seen bopp surtout li xale yi bëgg muy ñuy ñëw ci équipe yi ñu dem bu xale yi amee bés dee leen taxaw ci seen bés. Hmm. parce que ki nga xamante ni moom moo lay taxaw ci bésam sa bés bu amee bés nga lay yow mi nga xamante ne yaay leader équipe hmm. solal sa dàll dem gërëm yàqalu la dara. Hmm. solal sa dàll dem équipe bu yàqalu la dara solo sa daal jàppale ko ci sa kéemtulaay kàttan li nga ci mën mais père xale yi li ñuy coow yëpp dafa mel ni bu ñu amee bis du ñu gis ñi nga xamante ni ñooy seen leader yi ñëw di leen taxaw duñ ñëw benn yoon duñ leen ñëw duñ leen woo téléphone duñ leen jàppale loolu bokk na li tax xale yi di leen jàppale xel. mais loolu nag moo dul yoon. Mm-hmm. nit boo bëggee ànd ak moom seen ànd dëgër. Mm-hmm. bul xeeb bisam. koo xeeb bisam mu xeeb la. waaye koo fonk bisam mu fonk la. tey jii su ma amee su ma amee xew fu ñu su bureau bi nii ñu am xew ma ne ah bas de bu amee xew moom danaa dem moom jéem a sañse ba jekk dem yoo sama doole bu bu Bachir bu xaaral Bamba euh, nu mu tëddi aadama ñëwee amee xal ma ah waaye kooku de jarul ma dem loolu bu yàggee aadama ma bu ma amee xew du ñëw bu amee fulla waaw parce que yow ma damaa tànn damaa war a yemale ñëpp ngant nag du manqué ngant nag du ñàkk man ngaa am xew kii am xew xaw ma ñëw kii am xew bu tasanteeg ma feebar wala ma am ngànt bu téye waaye naa ko ne naa ko ne ngànt ma téye waaye nit li ma la gën a gàttal bas euh, Bachir dégg mooy nit boo ko xeebal bisam Abdou Khadre nit saa yoo ko xeebalee bisam nag wàññi nga dara jàmm yaa ngi jéem a wàññi dara jàmm dara jàmm nag yàllaa koy joxe mënoo ko wàññi sax waaye moom it fa nga ko tegoon tegu fa waaye koo ñëw bis tey jii xoola ngay supporter waxuma sax nga ànd ak moom mbër ci làmb ji waaye ngay supporter mbër rek tey ba xam ne supporter diw nga dégg nga nga am bis mu ñëw yandu si la loolu lu ko gën a rëy bu la joxul dara sax sa neex na la joxul dara sax sa xol neex na waxatuma laa kii ànd ak yow ci écrit nga xam ne mbooloo bi ngeen yëpp tey bu amoon luy reye bomb buy reye bu fa daanu woon yéen ñëpp lay faagaagal nga li ma la kon kooku tey ji bu ànd ak yow mu am bisam la nga war a def mate ko yaa ko tane ci kase amal loo ko dimbalee ci añ bi amal loo ko dimbalee ci oto yi waaw parce que tey loolu dafa am solo mbër mu ndaw nga àddal di bëre ak moom muy bëre da nga ko dimbali ci li mu li nga man ni nga ko ëpp doole li nga ko def mooy cachet bi nga am lu bon bon nga ne ko ah dimbali ko lii ci paas bi ak ah añ bi ñu togg ci nga dimbali ko ci lii booleeg nag entraînement nga ñëw taxaw di ko xool erreur bu mu def nga ne ko du nii mooy lii moytu lii adversaire bi kat nii la nangam dégg nga su daanee ngeen ànd bokk su daanoo comme ñoo ànd nga nga ne ko xam ne sport noonu la da ngay gagné di perte waaye boo amee bis xeeb ko bi ñëpp taxaw la waaye bisu kenn doo dem da ngay gees doo gis kenn li ma daan wax rek dafa la am góor gu ma doon wax nee na soo soo jiit ànd mbooloo nga jiitu ay di yor yax di seeñu bul seeñu yax bi moom set da koy yee seenu ba mu des suuti nga sànni ci ginnaaw ma seeñu paas xa Abdou Khadir Abdou Khadir <laughs> seeñu paas Adama presque ak bu jota waaye bu fekkee yax bi da koy sëgg ma ñocc ko ba mu set wicc doo paas kenn boo yàgg mbooloo mi da ngay gis doo gis benn mboolo doo gisati kenn parce que jaroo àndal dafa am ñu jar am ñoo xam ne ci àddina jar ñoo àndal waaw ñi jar àndal nag moom xam nañ leen mooy ñi am njariñ tey dimbalante te jàppalante tey njariñ nag nekkul ci xaalis rek nag du xaalis rek njariñ de mm-hmm. yedd la lu baax digal la lu baax teer la lu bon jaar la ci yoon bu baax digal di la jox sa mu di la ci wax sa avenir lu baax loolu lu am solo la loolu koy def yaa ci yaa ngi teg yaa ngi teg ci yoon mais boo ko deful tamit Bachir ah attention yàgg yàgg da ñàkk ñëpp loolu nag moo tax da nga bëri nañu mooy def carrière ba jeexal carrière bi jeex nga ñàkk ñëpp loolu danger la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 jaajëf Père maa lay jaajëfal bu baax waaw jërëjëf yàlla yàlla def na kàddu yi fi wax mooy kàddu njariñ xale yi dégg ñu eh, lu ci baax sunu borom la lu ci bon it ñun la rek waaw parce que waxuñu fi pour xas ni waxuñu waaye dañoo wax rek loo xam ne tey nettaliwuñ ci karaté nettaliwuñ ci football nettaliwuñ ci boxe lu ñuy nettali làmb lañ jaar parce que dañ ko dund. comme dañoo dund làmb nag te lii leen wax yëpp jaar nañ ci ñun gis nañ ko ay gars yu bari dem ba tuddante doom dootuñu laalante dem ba tuddante doom laa wala ñu tuddee doom bu jigéen du ngeen laalante sama benn xarit mas sama ko wax ñu daan ko ma ñëw di ko yedd mu naa ma waaw gaa yi nee na ma maal daan naa ñu ne ñu ne man maa ko doon daan ma ne ko diw ma ne ko diw ma ma ne ko man su ma xamoon luy daan kon kenn du ma daan kon maa koy defar sama bopp di daan mm-hmm. bàyyil wax boobu mm-hmm. mu ne ma saay-saay waxul dëgg mais yàq nam xel lii la ma ci tegal waaw te àddina dox na ba mujj gi sama loxo la mu jaar gis nga moo tax àddina mm-hmm. rafet xal baax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 ku na rëy ma waa na roy ma maa ko baaxi jeeg ñii ma yor fii jeeg